rek euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd euh, seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada euh, di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission kër gi niñ koy defee saa su xanaa dellu santaat yàlla bu baax moom mi ñu may kàttan ba ñu ñëw teew julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér a wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doo ko nag eh, ci malade yi tëdd ci hôpitaux yeeg ñuy weyale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen i activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëbu yarukaay itam ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu di leen ñaanal yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér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 di ñaan yàlla taxawu leen tàppe seeni xol ñoom ñëpp ñu nekk benn fa ñu bëgg jëmee Sénégal te di ko wax mu doon lu ñu mën a gëm ci ñoom ñu ngi ñaan yàlla na yàlla jàppale leen ba ñu mën ko faa yóbbu ñu ci nguur géeg ñi ci ku jégi ñëpp nag ndax ñëpp doomi Sénégal lañu te bu ñu nee Ngathie Poucha en général ñoom ci ñoom am na ci ñoo xamante ni ñooy bokk horaire bi kon dafay jaadu rek ñoom ñëpp ñu ñaanal leen jàmm ñaanal leen sutura ak xéewal waaye ñaanal leen itam lépp loo xamante ni njariñ la mu nekk ci ñoom war a mën a doon njariñal askan wi ñu ñaanal leen yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla teg leen foo xamante ni njariñ loolu dinañ ci mën a jot ndax ñun moom askanu Sénégal ku ñuy jàppale ku ñuy yiir ak taxawu njëmeñ ca kanam rek la ñu bëgg yàllaa ñu gën a xam na ka ñuy nax yàlla na ko yàlla teggi ba duñu tal waaye yàllaa gën a xam ka nga xamante ni la muy wax dëgg la ci moom yàlla na ko yàlla samp ci réew mi mu jàppale ñu ndax loolu la ñu soxla di nuyu di ziar waa réew mi yépp nag jamono bi ñi ko kale ci euh, 2STV di ñu seetaan ñu di leen bàyyi xel waaye di bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ni ñu ngi xaar euh, ci 88 point 4 seen rajo origine FM ñi ci marché yeeg atelier tailleur yeeg ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm jàmm joojee yàlla na law ba fépp foo xamante ni doomu aadamaa nga fa toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan yàlla na la ko yàlla defal moo xam réewu Afrique la wala réewu nit ku weex nañu yëg ne rek bañ leen nuyoo ba noppi ziar nañu leen ñaanal leen jàmm ñaanal leen sutura waaye itam ndokkeel leen itam dalal leen jàmm ci tabaski ji ñu dëgmal ci kàttanu borom bi yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin mi ngi ñëw yàlla nañu fi fekk ci jàmm ak salaam buy dem itam yàlla nañu fi bàyyi bàyyi lu ñu fi ay ngëneelam ñu teewee ko at yu bari te rafetu fekkin euh, yàlla na yàlla def itam ñi ki nga xamante ni mooy góorgóorlu bi te jamono bii mu toog ci biir néegam di wettalikoo la 2STV mu ngir njaboot gi jaaxal ko ca la ñu war a mën a jëfandikoo ci tabaski gi ngir itam njaboot gi jaaxal ko ci xar moo xamante ni daf koy sagale ak njabootam lu mu tuuti tuuti góorgóorlu boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yomb yàlla am nay coggal moo ci ëpp ñëpp yàlla am nay xar moo ci ëpp ñëpp kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla may ñëpp ay xar ak la muy àndal may leen ay morso yu ñu teg ci seen yaram ci kàttanu borom bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal góorgóorlu bi dafa metti bëgg dara loo amul dafa metti tollu diggante dafa metti njaboot dafa metti la waykat ba waxoon boo amee njaboot gu màggagul lu ne ngay dégg boo amee njaboot gu màggagul lu ne ngay daj boo amee njaboot gu màggagul itam lu ne ngay soraale waaye yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko bu njaboot googu màggee xam seen coonab way jur rek incha allahu taala lu la naqari woon lu ne dana fay waaye lu la metti woon lu ne itam yàlla dina ko teggi yàlla na ko yàlla defal njaboot ji jaboot yi sonn nañu ndeysaan sama yaay ja da daan wax bu ma saan a toog ci buntu kër gi ah, gis saret boo xamante ni wala oto bu ñu teg ay fauteuil teg lal takk takk mat laa ba teg ca wet ga ëmb yëree teg ca mu jël kurusam di ko ñaanal yàlla na la luyaas wàcc yàlla na la luyaas wàcc loolu nag ki jaar ci luyaas a ko mën a xam waaye itam ki nga xamante ni itam dafay sooraale ki nekk ci tolof tolof itam moo ko mën a xam kon luyaas yàlla na wàcc ñëpp wala bokk ñu bari ndax la baay baax daan wax rek yàlla yàlla yokk leeram gaa yëpp dañoo bëgg doon litre te walaat du mën a ñàkk xëy na walaat bi lañ koy jàppee mooy euh, buñ ci jëlee exemple ñi nga xamante ni yàlla tegandi na leen amuñu fu ñu nekk amuñu fu ñu dëkk tabaski yii di jub seeg ñoom seen itam kenn ku ci nekk yaa ngi wut foo ruur sa bopp di fa wax sa soxla ngir euh, am ci saafara kon yàlla na yàlla taxawu ñëpp ba kenn bañ a soxlaati daray kenn ñaan nag du mën a ñàkk moom ni ma leen ko waxee parce que yàlla dafa ne ñii dama leen a naddil ñii ma compal leen ñii ma toppaloo leen xaaraan ma xaaraan moomu nag bu ci nit ki tolloo da ngay jàppee ne li warul mën a nekk ñaan bi dafa bari waaw dañu sonal nit ñi nangam sàngam déedéet bu ko def ndax la buggaan ngay waxoon borom gëm sa bopp maa ngi koy nuyu di ko ziar bu fekkente ni siwo de la suur yàlla dénk la paan na la leer ni la ëpp ca siwo ba moom ko danga ko war a séddale nit ñi te séddale boobu moo waral yàlla am ñoo xamante ni daf leen a xañ xool ba xam sa diggante ak ñoom nan nga koy doxalee kon yàlla na yàlla taxaw ñëpp yal na yàlla jàppale ñëpp jaboot ji nga xamante ni loxoom mooy féete ndi suuf ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yal yàlla soppi jamonoom ba loxoom féete kaw muy dimbalee yàlla mën na ko sañ na ko te nag ko xool ki sa bopp ku ne fa nga doore ak fi nga yegg si tey war ngaa mën a xam ni yàlla dara safu ko kon yal na yàlla soppi jamono yi ñu dellu siwaat nag euh, ci li ñu dooroon démb rek euh, di xaarandi nag sama invité ab sama bo embouteillage bi moom diwaanu ndakaaru dugg fi fi mu toll nii jafe na lool lool lool ba loolu tax rek mu xaw a am retard tuuti waaye danañ ko xaar nag incha allahu taala euh, ba fii ba ba ñuy xaajal bu ñëwee rek danañ ko introduire ñu dugg ànd ak moom ci waxtaan wi nga xamante ni jël nañ ko mu jëm rek ci feebar bi nga xamante ni dafay dugg léeg sunu mbokki góor ñi démb nag euh, liñ ci jot ci ay message liñ ci jot ci ay appel liñ ci jot ci delloo fa sab loxo fa mu nekkoon bari na lool lool lool lool kon mu mel ni que feebar la boo xamante ni bariwul luñ koy traité ci biir kër gi waaye ndekete yoo nag jar naa bàyyi xel ba at mu nekk rek ñu waxtaan ak sunu mbokki góor ñi ci lenn ciy feebar yi nga xamante ni daf leen di dal wax naa leen ne leen bu kenn mbayang day bañ ko takk ay jabar takk leen la ñu wax comme seen ñetti aaya yooyu ma leen limal démb mokkal ngeen ko muy que ne góor ñeenti jabar a ko war aaya boobu moom charia moom boobu lañ ciy jëkk a jël moom lañ ciy gën a mokkal charia lan la ci teg yan condition lay doon boobu moom xooluñu ko góor moom ñeenti jabar rek la war a am mokkal ngeen ko lool euh, sa jëkkër bu guddi jotee bu la soxlaa teg la loxo nga teggi ko malaaka yi da lay rëbb boobu itam mokkal ngeen ko lool te li ma jaaxal moom malaaka yi bu fekkente ni dañuy rëbb jigéen ñi guddi am na góor ñoo xamante ni bëccëg dañ leen di rey balaa guddi di jot kon rëbb du am am na góor ñoo xamante ni nañu ma baal ci ña ma ko war a dañ leen di rey ci bëccëg bi ba noppi avant guddi di jot ba ñuy tal di leen rëbb rëbb jigéen ñi wala déet ndax góor goo xamante ne boo yeewoon ne ko ndekki mun a débrouiller la mu yor jël na ko def ko ci biir kawasam def ko ci tëssanu tànkam génn ci biti di wut sàmba àllaar góor googu bu guddi euh, la ko sariya wax euh, euh, def na ko góor gi nga xamante ni say moroomi doom lay kolaasanteel ci bëccëg bi say doom di ci teg bët nga di ci teg bët jàkkaarloog ñoom at di am naqar soo waxee mun la maa boo fee boo boo ko bëggee nga retaayawaat sa bopp delluwaat di gone ndax gone yi ñoo ko yor góor googu tal na kenn ku muy rëbb guddi góor gi nga xamante ni bala moo ñëw nga nelaw ba yuut jaar fu ne sëy sër tasaaroo néeg bi jalbaajoo ci la nga taaloon cuuraay naaw na góor googu dina rëbb kenn nañu delloo si waat xel yi donc ma ñëwaat ci li nga xamante ni ñoom mokkal nañ ko muy kene euh, sa jëkkër bu la tegee loxo guddi nga teggi ko euh, malaaka yi dañ lay rëbb boobu mooy deuxième bi nga xamante ni moom la ñu mokkal ginnaaw góor ñeenti jabar moo ko war te it nag nag eh, la labat googu itam eh, jabar yooyu dafay ànd ak li nga xamante ni moom mooy labat yooyu yëpp nekk yoo xamante ni mokkal ngeen ko waaye mokkaluñu mukk ne sama jabar ji naa ko may ab sac sama jabar ji naa ko may tiitër sama jabar ji naa ko may loo xamante ni bu génnee ci biti kenn du ko yeb li ma war dinaa ko def su ma ko mënee xam na su ma ko mënul xam na la ma ca mën itam sama kemtalaay kàttan dinaa ko def ndax ëllëg njaboot gi danañ ma laaj nan laa ko yore woon lépp loo xamante ni lu koy fullaal la wala lu koy sagal dinaa ko def ci koñ bi ba bu génnee kenn du ko yeb dem mbokk ne ma dellool dellool ci tons jëndal ñu radi ak tons jëndal ñu caakiri fa fataay jaa ngi tàng da nga naan <laughs> yéen de xanaa fataay rek ngeen di dunde pour lan yooyu yëpp bokk ci luy manqueel sa jabar luy tuutal sa jabar nga nekk ci nag nekk ci nag nekk ci war naa mën a ne d'accord mën nañ ko tolérer ndax xëy na da ngay collaborer ak xale yi pour am ci bu ndaw boo xamante ni danga koy teg sawet loo liggéey jox ko fàtte ko yaay fàtte yaay xale yi nga xamante ni ba kenn ñépp ne déedéet dafa ne woon aha kay ànd ak yow waaye bi ñu dawalee tuuti ba njaboot gi saw gi juddu rek gis na lañ ko doon teree ci yow moom ci sëy ba d'accord takkal ci gone gi su la neexee waaye nag li ñu gën a metti ñun mooy jabaru jàmbur yow daal kool gu gudd bu mariage de couleur ñu bàyyi ko muy béexee xel ci suuf moom ngay bañ a dégg xetu parfum wala cuuraay loo xamante ni day mel ni goowee saafu ab sama ba mi may wàcce invité léegi moom ngay bañ mu traversé la sa bakken pire encore yàlla bu nekk jigéen joo xamante ne na xëy na ñàkk naa wormaal borom këram ba la muy takk bala mu koo mën a takk day génn buntu kër gi dégg ñu naan kanjang kanjang parce que loolu moo ko ci neex te c'est très dangereux jigéen jigéen itam dinaa ñëw ci ñoom dinaa ñëw ci ñoom parce que nag léeg-léeg bañee ca mbànjoxaan nga te it euh, euh, li ñuy wax ne ponkal bu dabee naaru góor ca doxin wala dafay am dafay nekk loo xamante ni lu am la donte am na ñoo xamante ni nag ñoom bala nga bala ngaa mën a mucc ci ñoom rek nga dugal leen ci ruq talaate seen lex bi ba nelaw ci waaw parce que ñetti tàcc yu jigéen xajul ci bopp góor te koo talaata ku ne raayub lexam lay def génn ca biti dem yoonam dégg naa ci soxna soo xamante ni dafa nekkoon ci kër gi am mbokkum jëkkëram moo xamante ni tongal ko rek sonal ko witt sonal ko witt rek ci dinaa ko nekk man ak yow parce que sa jëkkër nekk feeg nangam sangam feer la jël ne ko tegg ca lex ba ba suñu jonn yàlla tey waxul lex bi lu ko lakk lu mu doon dane pat ak moom jigéen ñi ne ñu am fulla ju tol noonu waaye ma delluwaat ci góor ñi rek bu la kol rombee nga ne ah waaye ajaratu waaye kol gaa ngi watatu kat <laughs> yow moom taarkal la di xanaa sa kol asli la pour lan ci góor romb la xetam di xeeñ waa ma ne cuuraay li moom Euh, suuru kese la détail yooyu dafay mankeel góor manqueel sa njaboot gi nga bàyyi sa biir kër tey foofu la ñu jëmaat rek incha allahu taala ànd ko yéen ci 88 628 14 13 wala numéro international bi ngeen mën ko jël rek àndandoo ak ñun feebar la boo xamante ni ñu bari ñu ngi koy dund wóor na yàlla jigéen ñi ma woo démb du ma la wax sama tur ki sama téléphone du ma la wax sama tur mais man daf yow kan moo la yebal sama kër wala kan moo indi sama histoire euh, ci ci télévision bi ma ne ko xëy na yow la xëy na ku la xam la wala xëy na keneen koo xamante ni parce que doo ci kenn ku ma jot wax ji di benn feebar bi nga xamante ni mi ngi ci biir góor ñi ba wàcc li leen lew ci biir kër gi dem la lew jàmbur ñi di cee jéem a ruuru bay wàcce seen bopp foofu la mbir mi nekk te yaa de see mooy yoo xamante ni boo ko dee waxante ak jabaru jàmbur même su fekkente ni sequ leen dara c'est dérangeant day déranger jabar parce que sama jabaru xarit la foofu tam dafay am dafay am léeg sama jabaru xarit la moom daal bala ma mën a lekk lu ma neex sama kër copain bi Cheikh il faut ma yegg ci këram non jabaram li muy togg maara day taali te sa jabar a ngi toog te jigéen joo utal fourne utal ko matériel utal ko la ca war mu toggal la lu mel ni la la jabaru Cheikh di toggal te te te te te li olof Njaay di wax togg gu neex fere la sant mooy li ci nekk togg gu neex fere rek mooy santam nga ne nag ah Cheikh Laay daal këram moom boo nee yunn ci buntu kër gi rek xetu cewraay gi daaneel la hoho te nag en général yooyu jabar yu ndaw yi lañ koy def jabar ju mag ja nga xamante ni mooy aawab Cheikh Laay moom talul yooyu daal doole la tal yiir ak njabootam jàppale leen taxawu leen ba ñu mën a doon dara ëllëg kii nga xamante ni mooy soog a ñëw am jot yorul doom toggul njël léeg sax boo fa ayewulee ci restaurant ba lay dem jëndi kooku këram xeeñ lu neex yomb ngeen war a aye si mu préparé leen leen benn guddi bëccëg bi mu amul seen jot genn guddi la leen di préparé lu ngeen lekk kooku yomb na pour këram rafet yomb na pour toggam neex nga ñëw nag dellu siwaat ci sa jabar jabari diw jëde nangam sa jabar di ko déggandeem du ko neex ci xol léeg-léeg am na yenn waxtaan yoo xamante ni sa jëkkër daf koy waxtaane ak jabaru xaritam sori sori waay boo xamante ni ca na muy séqee ak ak xaritam ci kër ga waaye sa waay ko jàpp nag sa waay moom yëngootul de gars yi ngelaw mënatu koo ub nga ñëw dellu si waat ci sa kër di ko wax ci sa jabar yooyu yëpp sa dérangeant waaye nag bi ci gën a garaaw mooy dem ba gis message yoo xamante ni doo ci tuddee lu du saab jigéen laak saab jarbaat laak kii de maa ngi ndeyam fa nu xamante woon nag moo tax bi mu sëyee nii maa koy lijjanti sëyam bi lijjanti woo sëyam bi da ngay lijjanti pour mu tas nga xëcc ko ci sa bopp wala an nga ànd ak moom defuk caay-caay mu delluwaat ci biir néegu sëyam di fa dund loolu bu ko ca doom fekkee di kër ngénte ndax jàpp na ne kat kii ab ndijaayam la wala kii papaam ju ndaw la wala kii dëkkandoo bu yàgg la boo xamante ni war na ko mën a libéré ak moom góor ñi nañu delloo siwaat seen xel buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy jaar ci indi ki seen xalaat waaye laataa loolu rek dañuy daal di ànd ak Doudou Kane mu jébbal leen benn clip ngeen seetaan ko ñu dellu si àndaat ak yéen tawratatoo ci Seynabu bokkum laa jëm tawratatoo tawratatoo tawratatoo ci madame to Abdou laa jëm rismon diis tawratatoo eh, Adama bokkum nga bokkal yaay ay donc kee Seynabu bokkum kuy sa yaay aji fàttu jéen lamb ko gaañoo kooku la ni jooy yaay ndey awandooy sa yaay lamb ko Banjool ndey bi tamaa ne la bokkal yaay woy nga ne ko taw ratatoo eh, ci doomi Fuuta Fuuta Masina Alaaji Saydu boo Fuuta la cosaanoo Fuuta la cosaanoo ak dëkkub sëñ Babacar Si Tiwaawan xoolal e yow li nga bokk ak député Thierno doomu Fuuta Tooro di liggéey lu baax bëgg ñëpp ñëpp a waaye ajaawa saaray sa maam ajaawa aji njaaña yaayam aji njaaña mbay gërëm la bokkal ndey baay papay Aminata mel a alaaji Babacar Mbay la bokkal baay baay Fatou Mbay Mori Caane Njaay xoolal li nga bokk Mbay Mori Caane Njaay dama ni ay lebu ngeen ay baayam lamb ko gànjoor mu saf jéen kooku racine jéen ay baayam lamb ko jéen bànd ak racine ak xayta njawar ak racine ay lebu ngeen ay lebu piir yéena moom diggante bat ñeg ta ngéej na bu bokkum yow la ñu dénk Alaaji bilaay kooku moo gore la suturaal te moo la jàppale waaye say na bu bokkum teral nga sa yaay sa ñaanal na la yaa bokk bi ci muy awa bokkum nday jaara bokkum la bokkal yaay kenn demul ba waaye moo di kenn du dem bala alaaji Babacar Mbaye sa baay yi nga bokk ak Xadi kooku mooy sa maam yaay mama su sama doom woy wa ndeel yaay ami buy taaw eh i dëkk a juddi dëkk a baa dëkk a màgg dëkk a tekki daara mooy yaay biraawaay eh mbokk nañ fàttaw laay aji soxna njaay maamam ki ni joote noppee Pikine kenn demul balaa tawratatoo eh kon tawratatoo risque nu diis Seynabou bokkuma gi rif la ci réew mi ay doomu kee aji màggat bokkumay sa baay soo ne bokkum nga bokkal baay jërëjëf euh, Asama Bo ci clip bu am solo boobu taw ratato ñi ciy bégal bu baax a baax nag waa Chic and Style Baye Fatou Fatou euh, Fatoumata Diouf ma nga Italie maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar Mami Thiam ma nga Mensa ak euh, ki nga xamante ni mooy bay Bayla Ndiaye nekk Strasbourg ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Daba Sarr borom séduction sénégalaise ma nga diwaanu Congo moom tamit bokk Chic and Style Baye Fatou Fatou waaye du fàtte ki nga xamante ni mooy Salimata France ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye fàttewuñu sama doom madame Silla euh, nen saw nekk fële euh, ca Allemagne ak Italie ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar yaay sëñ Fallou euh, kontaan nañ ci moom kontaan ci ki nga xamante ni itam mooy Mami Chanel ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ami Chanel di kontaan ci moom waaye itam sama papa ja ñu di ko wax Pape Mbeng ma nga nekk ca Louga Pambeng ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar euh, yal na ko yàlla may wér te taxawu ko euh, taxawu ko ci jàngoro ji Pape Mbengue yàlla na ko yàlla may wér waaye nuyu naa bu baax a baax itam euh, Mame Fatou Mbengue nekk foofu ca diwaanu Kébémer di sama xarit ak maamam mère Cekka ñu dellu si waat rek ab sa yaakaar naa ni tawratatoo nga de. dëgg la fi nga génn nooy na de. tawratatoo pire. <laughs> macha allah. def nga ba mu baax laay fa tubaab fa kàlla soxna Mbaye. ndakaaru jafee dugg lool waaye nga bàyyi lépp nag ñëw ànd ak ñoom ci bi rek fa tubaab fa kàlla macha allah. Mm. ndakaaru xat lool ndax li ñu jublu muy tabaski gi rek. Mm-hmm, fa tubaab mm-hmm. fa kàlla ñëpp da wuti Dakar. wallaahi may nuyu nag fa tubaab fa kàlla àddina. Mm-hmm. di nuyu ñëpp fa tubaab fa kàlla. di nuyooti samay waajur ñi nga xam ñoo waral ma toog fii mhm. dama sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu weer bi nga xam moom it fa la ñëpp jëm fi mu nekk ku wax fi ne yaa nga bëgg a dem rek ziar bi mhm. yàlla na ko ñun ñëpp ziaré ku na nga delloo ci barke sama rakk jooju dem sare yàlla na tund bay sargal muy aji muy muy aji soxna sare yàlla nañu toog ba di ko sargal biram gi la ko caam allahumma waaye may nuyu nag di ñaanal sama yaay mhm. ba jiitu ji ak sama papa ak yaay yëpp amiin yal na leen fa nu dem dàqal fi ñu jóge waaye may ziyaari di nuyu nag waa Touba. Mm-hmm. Touba nag dëkk Serigne Bamba ki julli woon ci géej gi may ziyaar sama ndijaay sama xalifa mm-hmm. di sama yaay ki tax wéetuma Alaaji Babacar Gueye mu Serigne Modou Boussa Dieng mm-hmm. ki nga xamal luñ dénk may sa mbend ay say mi ci jaam yi di papay Fatou Gueye taaw waaye may ziyaar sama mag nag sama xalifa mbaalo sare teg ci góor binta kundul sama aawo mboo sa jong mu ñaari maam jaare pare maa bo ñaareel ñaari maam jaara yi mu am ah dama fan ñaareel nga non non man awala waaye awala ñaareel laa ñetteel laa déedéet ñaar dafa am ñaareel bu eh, xaw ma benn soxna su def lu dëgg la eh, eh, di naa la bàyyi nga yeggale nii waaw ma yeggalee mhm. may nuyu tamit fatubar fa kàlla parcelle gi ma jógee nga xam ne ñoo ma jox de palanteer déedéet kay di nuyu yaay yëpp ñoo la fëxal ñoo ma jox départ volontaire <laughs> di nuyu sama yaay yëpp di ko jiital ci aji mbari ñang ak Khady Diène mii di yaay seen bokkum mhm. ak taan Aminata Mbaye mhm. yaay mama gay mhm. gay mi ci ambuloof yi ci man di nuyu fattubaat fakal ajiratu nag Khady Aïdara Serif borom barrière or ba ci Medinatu yaay dëggan taaw yaay maam jaara caat ndeysaan waaye may nuyu fattubaat fakal la sama jeg maa ngi nuyu nag Anta Anta Dieng Anta Dieng mhm. yóbbante bi egsi na mhm. Ablaye dem xar mi ñëw na ay gortare sama rakk ji bàyyi ma benn yoon ah sa xar ñëw na yow <laughs> dégg na ah, ma xar de waaye ku def lu baax ko c'est invité giwal ci boppam sérieux problème ngay am billaay waaye nag kër moom nii la il faut ñu firi toog fatubaar fa kàll yow ku toog yow day non stress <laughs> sama xale yiit laaw la cet macha allah tout le monde sa très bien ñoom dañuy xàppi nees ak <laughs> maa ngi nuyu parcelle gépp bàyyi ma kenn kulim da ngay jum uh-huh. anta sàll ma yoro teg naa ko ci sa loxo waa 26 1 ba 26. ndeysaan nag Mbayang di la sant di sant kër gi kër gi yàlla na mel ni juróom-ñaari solo di sëñ si di Mbàkke. allahumma amiin sëñ si di Maxtaar Baye. allahumma amiin léppam set la yàlla na gën a jol joli. di sant borom kër gi di leen sant. di sant ñëpp fortubaat fa kàlla. ndeysaan di sant macha allah laaw la cet nag. sama boroom kër ki ma doole Alaaji Baara. waaw di ko jàlloo nag. waa waa waa xel koom. Mm-hmm. karasor yi. suudar yëpp maa ngi leen koy may di ko jox nday fay nag sama njëkke loolu nga xam fu mu jëm yëpp wala <laughs> maa yi nag moom sare sare yi moom fu ma toll ñoo nekk fii moom a jaaxal dégg tam diri anta cambaalo may naa ko waa ngelit waa ko moo ko may waa kan maa gànna biraan mm. may naa ko nag waa kan ñàkki maa ba sare ñëpp ngi ci biir jërëjëf sama xel dem ci sama mag ja sama chéri ba sama lépp muy Ndey Mbaw Jong madame Serigne Sare feu Serigne Sare ñu ngi ñaanal bu baax a baax yàlla na ko yàlla jàppale amiin waaye di jaale bu baax itam sunu yaay ja Kumba Ndiaye Euh, sëtam bi nga xamante ni moom moo génn àddina di doom ci Ndeye Sène Ngom euh, defe naa Papa Cheikh la tudd ñu ko koy jaale bu baax a baax a baax euh, di ñaanal Ndeye Sène Ngom ak wayjuru xale bi ku góor ki muy daam yal na yàlla may leen xolu muñ Euh, euh, yàlla taxawu leen yàlla bokk ca gone ya nga xamante ni ñooy doon walax njaanu aljana amiin yàlla mën na ko sañ na ko waaye sunu yaay jooju aratu ajaratu Kumba Njaay lu mu dégg ci ñun rek ñukki ñukki dem kër ga di ko baax di ko yaatu hmm. macha allah yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam mu yàgg ñaanal sëtam le sëtam xaritam léppam ajaa Kumba Njaay ñu ngi la koy jaale bu baax hmm. waaye ab sa da nga fee fekk ñu yëkkati tem boo xamante ni hmm. feebar la man feebar laa ko mën a tuddee. dëgg la ndax du ñu wax sax ne tey la ndax lu fi yàgg la. Mhm. ndax maa ngi leen koy wax jamonoy P15. Mhm. ca Sotaraak. dëgg la mbir yi daan nga ko fa gis. Mhm. ku ñu jékki-jékki summeeku dóor ba muy bëgg a dee. dëgg la ndax li ko waral du dara lu dul jigéen ji nga xamante ni dafa jékki-jékki fëgg gémmiñam. xool leen kii ni mu def ni mu yàqee samay sër. ma nga ca marché ya ma nga fu ne léegi nag euh, feebar boobu. ñu xaw ko traversé sax di ko dégg rarement xaw ma kaar yee bari léegi mm-hmm. ba ñëpp yaatu ci biir ba kenn sañatul def na naka sudul noonu daa nga ko gisati ci ci gumbe yeeg Euh, ci ci ci lépp loo xamante ni waa mun nga mm. jël téléphone bi arrêté ko mm. daan nga ko gis ci gumbe yi mm. daan nga ko gis ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy tànn béer yi daan ko gis fu ne mais léegi jamono di dox ba yooyu xëy na euh, doon lu wàññeeku ci dëkk bi ba tax na euh, gis ko fa léegi dafay jafe mais nag bi gën a garaaw nag mooy jabaru jàmbur jabaru jàmbur nga di ko nga ngay ngorowoo ak moom dëgg la jàmbur ba de am na ca wàll moom muy soxna si ci wàllu boppam. Mm. waaye nag maladie bi ngay am ba sa jabar ji nga bàyyi ko ci kër gi juróog moom ay mbañi ruus juróog moom ñoo xamante ne kuñ ci na jëkkëriñ nii nga ne doom a ngi. Mm. bu dee góor la ñëpp mat nañoo jël ay soxna. Mm. wëlbatiku di dégg ci seen baay parce que nag loo yaakaarul ne xale yi xam nañ ko xam nañ ko. xam nañ ko bu baax di dégg ci seen baay ne ci lii lay dox. Mm-hmm. sa jabar ji tam xam ko ci yow. woo na yedd woo na waxtaan. woo na lépp mënu ci dara te nag li ci metti mooy. jabar ji du mën a dem ci sëram di ko wax. déedéet. du mën a dem ci ndeyam di ko wax xamal ko. te jaboot na ci biir kër gi bu tàggoo mm. dinañ ko laaj li la tax a tàggoo lu mu doon dina am ñoo xamante ni du ñu ànd ak moom sax dañ koy jàppee ne ñaaw njort mooy li nga xamante ni moom moo waral mu tas ab sëyam mm. waaye ànd ak lu mën a xew rek dafay doon loo xamante ni euh, njort la xëy na moo koy waral waaye nag waroon naa mën a toog ci sëy ba loolu lay jàpp nga toog ci sëy ba nag di ko ruuruwaale di nga waxtaan ak sa borom kër di nga ñaanlu di nga sunguftu di nga rentu di nga def lu nekk pour bëgg mu génn ki situation bi mu tëccati ci nag ndax góor moom am na loo xam ne boo ko xasee ba xam ti moom nëbbatu la ko feebar boobu ab sa mooy lan. ah feebar bi di Adja Mbaye doy na waar. Mhm. ah man de damaa jaaxle. Mhm. mais jàngoro la nag de. Mhm. du tayif de. parce que am na ñoo xam ne feebar boobu ngay wax noonu ak soxna Mbaye. seen yaay ji leen jur sax seexlawuñu ko. ah waaw jàngoro lay doon ci ñoom. seen sër yi ñu bokkal ndey ak baay seexla wuñ ko hmm? waaw doom ji nga jut si biir kër sax jàngoro jooju bu yaa ngi koy xool noo ko mën a sax ko ndax seexla kon jàngoro yàlla na ci yàlla musal góor ñu baax ñi yàlla na nu yàlla musal ci loolu yàlla na ko musal góor ñu baax ñëpp musal ci suñu njaboot amiin amiin mais jàngoro la boo xam si dit lay doon ci ñoom mm-hmm, mm-hmm. bu xasee jóg xoolatuñu dara bu yëngatoo rek nga départ wóor na Mouhamed ndeysaan fa tubaar fa la yenn yi nag kenn xamul lu muy nul ndax xooloo yet yàlla cay fekk xooloo ndiiraan ma la cay fekk déedéet. xooloo sax ku góor ki nga xamante ni attan na laa dóor bal euh, démb rek marcel lënd bi nekk parcelle waaw ci stade amitié waaw am na ñuy fi xale yu góor yi la di sotti seen bagage noonu waaw di jaay mais man gis naa góor goo xam ne ma nga am na ku sëgg di tànn mais ma nga taxaw ci ginnaaw ma dama def ni taxaw di ko xool gis nga bi xale bi ndaw si laa ko ni mhm. defal attention xoolal ki sa ginnaaw mu xaw a randu tuuti xool ma mais mu yi la ñuy wër mais jàngoro la parce que man gis naa koo xam ni rakkam ji mbokkal ndey ak baay dem na tëdd na mu jóg di ko bëgg a sàkku ndax loolu feebar la nag feebar la de ku ko ku mu dal nag yàlla na ko yàlla teggi feebar bu garaaw na ko yàlla teggi bu garaaw bu kaar moom kenn waxatu ko kaar yi moom moom te koo ci ne eey eh, mun la eey eh, lan laa def jaay la rëyu làmmiñ nga bëgg koo tegal benn si mu tegal la faraas waaw nag ma wax la benn affaire de am na ah. xale yu jigéen ñu saay-saay yoo xam ne dañ lay bàyyi waaw parce que boo teelee yuuxu mm-hmm. mën a am am waaw bu fekkee yéex ngaa yuuxu ne tekk bàyyi ko di ko seetaan di ko seetaan ba mu leer ne kii xumb na mhm. boo tàccoo rek mu wàcc kaar bi mu wàcc kaar taxul ñooy wax sax parce que nag bu boo nee lan laa la def lan laa def gars yi yëpp seen bët yi day daal di daw ci suuf mhm. xam nañ fi may waxee te foofu mandarga ba mën naa teel a feeñ wallaay dëgg la kon nañu delloo siwaat xel yi ab sa daal wallaay yooyu yëpp euh, sax euh, mën nañ ne feebar la feebar la bokk na ci itam doxaan jabar doxaan jabar jàmbur ci mais mais sa jabar ji nga xamante ne da ngay nekk ak moom ci biir kër gi ab sa mhm. heure bu génnee ñu ne ko yaa ah, sañse bi rafet na waaye yow la de ni nga mel moom kii de temps yi namul dara mm-hmm. bu ne dëngañ ko mel ni mbay ak ne waaye xam naa ni jëkkëram ji waroon na koo dimbali de wallaay jëkkëram ji nga xam ne bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn te nag li ma ci jaaxal reekatu biti yooyu mm-hmm. du ñu ree seen jabar du ñu ree seen doom bu ñu xasee dugg ci kanam kër ga rek dugg na bind nañ seen kanam merde fekk faw yi nañ ba doy rek ñëw ci njaboot gi ridicule nag ci mbedd mi wallaay wallaay wallaay ñàkkal seen bopp fayda ci mbedd mi fayda loolu nag lan lay nuru ñoo ma jaaxal nga bàyyi soxna laaw la cat. Mhm. mu mel na mu war a mel nga jaboot sa jaboot toog ci sa wet. wallaahi yow nga liggéey ba wàcc ñëw toog ci sa njaboot. sa soxna mel na mu war a mel taal cuuraay tëróotatoo. Mhm. sa néeg bu mel ni bii nga ma indil. macha allah laaw la cat. <laughs> léppam tout le monde c'est très bien. nga war a toog rek le mu taaj la reet bi jox la lëwal bi. teg ci yu sedd yi nga waxtaan ak sa njaboot nooy stress. mu lew la doom waaye nga wàcc yaa ngi bëgg a teel a wàcc. la ci sa poos nga war ko yóbbul sa jabar déedéet yaa ngay xool fa ngay wàcc bàyyi ko fa. te la ngay wuti ma nga ci biir kër gi li ki na la am wax. lew la doom fiiruñu de. Mm-hmm. waaye nag macha allah góor ñi ne ku leen yor il faut nag doo leen def dara sax ndax da nga leen di seetaan rek. non doo seetaan ah déedéet léeg-léeg nga jëmbu nib góom di. ah man de damay xoore ndax njaboot gi. ah déedéet lu tax ni sa baay kat daa doxi woon la ko neex daa doxaani woon. waaw loolu moom loolu moom doom nawle la. loolu moom góor ñi la nawle la. Mm-hmm. macha allah nañu delluwaat nag te xam ne addina jeex na. Mm-hmm. laway wuti rek mi ci sa biir kër. biir kër la doom fa tubaar fa kàlla ñaar dërëm yi nga am bokkoog sa njaboot waaye dërëm baa fi ne julli gi mayu ñu mayu ñu leen jàmm de borom kër yi xale yi tuuti ñoo leen laaj ay saba naturel yu deux cent mille mbubb dàll te bu leen seen doom laajee ñun yëruñu fatubaar fa dañ koy yuuxu sax booleel ko ci baa ñu yuuxu ko laaw la cet masala day siddit doxaan day siddit ak gis jigéen rek tàqali ko sa sago loolu yàlla da koo def xam nga man koy wax démb man leen man leen dañuy toog ci bopp koñ yi mm. saan ëllëg ñu dugg ci biir contrôler mm. seenu njaboot mm. waaye yéen ci lu ngeen di nekk lu ngeen di jàng waaye gis ngeen li xew ci internet bi ah prudence de parce que nag nangam ak nangam am na am na ci sujet yoo xamante ni tabu lañ ko jàppee pour seen njaboot mm-hmm. waruma mën a waxtaan ak sama doom nangam parce que mm. loolu du rôlu papa na ko jàngee ci école ba wala na ko jàngee ci télé ba la wala na ko jàngee ci internet ba mën naa jàng ba jàng lu ko ëpp mm. te fekk boobu loolu nga koy wax sujet tabu la yaa ngi koy wax ci mbedd mi ci bopp koñ bi moroomam wala koo xamante ni ñaari di nga def ak wax yàq fayda ah, nee naa leen dama tuñ sax ci mag ñi xale yu ndaw yi kii non xale dañuy toog ci biti du ñu yor ñaar dërëm dëgg la mais ci seen tension yi ci la ñuy jëndee ataaya jeex na ci la ñuy jënd fataaya rek ngay dégg sama paa bi rek jël seen. jël seen booy teg fii saan paa bi rek. ndeysaan Adja Ndombour Mbeng ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax nee na ma démb démb démb dama reeba tëdd ki suuf. ma ne ko moom loolu mooy li fi nekk. Mm. nañu moytandiku yooyu te am na ci loo xamante ni sa jabar sëpp mm. wala sa jabar toog mm. ci buntu kër gi wala mu jël noppam sànni ci mbedd mi yaa ngi ci bunt bi benn xale ñëw taxaw traversé la waa tons yaa ngi taxaw tons li nga ges gesneer baax na mm-hmm. nga naa ah, ah yow tuddee naa la ko wallaay ak jox ma sa numéro dànk di jël jël yëkkati yëkkati sa portable bëgg xale bi envoyé la numéro. lu da nga koy dabi sax. bàyyi loolu de sama laaj bi nag moom. loolu doo ko envoyé ndànk da nga koy dabi. loolu sama laaj bi dalu ko de Mamadou Lamine Baara. waaw kooku moom macha allah laaw la cat. kon xam nga yow su la neexee nga tiitaru ci sa mbedd koñ. Ablaye gise tamit sama doom jooju. waaw góoru Awa Gisee. càmmiñul jigéen eh, càmmiñul Fatou Touré Niang sama doom ji. waaw loolu dalu ko waaye Baara Ndong sama goro bi loolu dalu ko. macha allah laaw la ca bu leen neexee ñu tiitaru ci mbedd bu leen neexee ñu tiitaru mais am na ñoo xamante ni rus nañu génn waaw bu naam yóbbul nañ ko seen macha allah d' accord wallaay donc bunt baa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar euh, su ko defee rek ñu àndandoo ak yéen ci 88 628 14 13 ci jàngoro ji nga xamante ni dafa lëmbe réew mi mm. euh, euh, ki nga xamante ni mooy Absa nee na bàyyiwuñu yaay seexluwuñu yaay seexluwuñu jigéen mm. seexluwuñu jabar yi jàmbur mm. am na ci nag koo xamante ni nee na ma démb waxal ci paa yi nga xamante ni seeni doom dañuy dem bitim réew seen xeex yëpp duudu nañu kaleel publicité ñu ñëw ci léegi seen xeex yëpp mooy sa sa jabar na ñëw ci biir kër gi waaw ndax ba ma lay jur nga màgg ba yoroon yor kër gi moo taxoon ñu di la wax ñu di wax di joxe dépense fële ci àll ba di ko joxe ci kër gi du yoon sa jabar na ñëw ci kër gi mm-hmm. sa goro jigéen mi ci biir kër gi mm-hmm. muy sa yaay yaayu ko góor gi. dëgg mi ngi ci biir kër gi. dëgg la danaan ah ba jéeg ji xëy da damaa xëyoon. Mm-hmm. waaye nag ba léegi marché wàccagu ma. ndax aw ma goro. Mm-hmm. ndax sama goro say siwul. say siwul yow mii ko góor ki nga ne kat lii lu raisonnable. Mm-hmm. sama jabar comme amaguma fu ma ko def. dëgg la mi ngi këri mbokkam naa ko jël muur ko. indi ko ci biir kër gi mu say si. dëgg la nekk ak sama yaay ak sama papa taxawul ma leen. dëgg parce que ñooy samay kilifa. dëgg la. waaye ndekete sa papa la muy nekkee ak moom. bu la ko xale bi jigéen bi waxoon musiba am. wallaay wallaay boobu maladie mooy ban. xaw ma ko dem ba doon papa ceeb goro ci biir kër gi. xaw ma ko. yow même bu fekkente ni dafa nekk ci mbedd mi sax wax sa doom ci boppam bu ko xamee war naa tiit ne sama papa bàyyiwul kenn. wallaay kon du bàyyi sama jabar ji nga xamante ni mu ci biir kër gi. wallaay te nag papa yaay mujjee tëj. Mhm. yaay tëj. Mhm. yaay jóg fajar. Mhm. yaay xool ndax dangam rangé na. ndax buntu bi tëju na. wallaay yàlla bu tàngaay jot nag jéeg ba doon koo xamante ni macha allah. dugg na xëppam ndoxam. balaa muy tëdd romb la ak sarbet rek. nga ne këlañ kenn dootu la mën a yëkkati. kenn dootu la mën a yëkkati. li ngay def mooy diggante wi ba 3 heures du matin da ngay toog ci digg ëtt bi naan dafa tàng damay feexlu te jubluwoo ci lu dul jéem a xool ndax gone gi. mën nga ko mu biir kër gi. ab waaw yow Mbaye noonu noo ko xamee. ah baax na waaye yow tew rata too lépp ci biir kër gi <laughs> goro yi nga xam ne ñu ngi xool goro yi ci biir kër gi waaw bu ñu nekkee comme ni nga waxee fa ñuy seen njëkk teg ndax amuñu ñu nekk fii ñu muur leen indi leen xooluñu yaayi go yaayi ko góor ki. jabar ja ca kër ga. borom ba sëy si lay xool fu mu ko romb rek teg na ko défense. ba muy gone teg kon mu na mu demee. tey ngay dee ko génne kër ga. dina ko ji sa jabar ji du toog du toog dem yoonam ah. jiñ ko la mu ko bëggoon def mu jiñ ko ko far feneen ni ko mu jiñ loolu rek fi am loolu fi am soxna Mbaye Doudou ñu dem seetaan publicité dellu si waat ci góor ñi nañu vigilant tuuti. Mm. ci yi leen seen i yi di wax ci seen jabar yi. dëgg la te fekk booba dara wundu ko. Mm. lu dul bëggoon caa jot te mënoo mm. caa jot xale ba am ful la. wala même bu fekkente ne yow sa plaisir lenn la. heure boo déggee ni mi ngi dugg ci douche bi di sangu. nga génn xëcc sa si teg ci biti yor-yor sa kurus. ngir bëgg a xeelaamu rek sàcc plaisir. ñu dem seetaani ji publicité dellu si waat. thank you mbokku Sénégal entreprise menuiserie Le Saloum ñëw na ngir faj suñuy aajo ci wàllu ameublement monsieur et madame Dramé doomi réew mi la taxaw nanu ci faj lépp loo xam ne jafe-jafe la woon ci wàllu woowu lan nga bëgg lal chambre à coucher salon salle à lambri wala da ngaa tabax ba noppi bëgg parquet sal am na fa ak lan bant bu wóor bibinga beete iroko mooy bi loo ci bëgg ak design bu amul fenn am na fa kon bul jëlati avion di dem bitim réew ngir lan ameublement wooteel ci 835 99 89 entreprise menuiserie Le Saloum sunu aajo faju na yaay ñett yaay ñett yàlla yaay fet filaale boobu ba léegi nag mënu maa mënagu ma xam lu ma doon ba léegi yow yaay <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, waa régie mm. jaajëfal monsieur et madame Dramé ci euh, yu am solo yooyu di wax na rek euh, ñun mënuñoo ñàkk ànd ak ñoom ndax seen originalité waaye itam seen toog ci réew mi bëgg lu jéemee réew mi kanam kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar Euh, buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar xam naa ci 17 minutes yi ñuy desee waaye nag Absa euh, Absa bu ñu waxee ci góor ñi ba pare mm-hmm. léeg jigéen ñi dañ ci am part de responsabilité mm-hmm. ci goro googu ñu jeexalee ci laay commencé waat mm-hmm. su la leeree ni sa papa yi jëkkër mi ngi ci kër gi soo ko jàppee woon sa papa am na noo xamante ne dooni mel sangu jigéen romb ko ne wëgëj déedéet jëlub sarbet rek bëgg cee tënji ween ak ba koo bañ tënji ci tënji ci aw yaram loolu de damay day sotti samay rab man xam nga évatra daal na ma ko wax ak mm. euh, def naa am na keneen ku jigéen ku ma ko doon rama waaw mbayang li ma jaaxal mooy da nga fiir ba dof man de dooma dab xam nga man man mënuma concevoir jigéen ju sëy daje ku góor ci mbedd mi nuyu nuyu ko wala ci palaasu liggéeykaay wala dara akolaat ko man dama koy bañ ñu jël kii ci ligne bi ba noppi allo allo allo allo waa nañ ñëw ubbil retour bi su ko defee mbokk yi mën a participer euh, ci 88 628 14 13 ab sama doon wax ne man euh, dama wax ne jigéen ji nga xamante ne dafa sëy mm-hmm. fiyam jëkkëram moo ko moom mm-hmm. mais koo dajeel ku góor ci mbedd mi te yoxamte lu daal di akolaat jël sa dënn te kib dënnam nanguwuma ko tey jigéen ñi nañ ko bàyyi xel. dëgg la dëkk ak ay góor ci biir kër gi moo xam say frère jëkkër lañu moo xam sa papa yu jëkkër la. douche yi amoo douche yi sa biir néeg mhm. douche ba ca biti moom ngay sangu jee li ngay def mooy da ngay jël jël sa sarbet bu ndaw mhm. daal di jël daal di tëñ laayu mhm. sarbet ba du yegg ci oom poitrine ba du muuru nga romb nit ñi wëgëj wëgëj yi dem te dañuy wax ne góor gu ne góor la góor la foofu la góor ñàkkee maanaam nag bañ naan góor gu nekk góor la ba seexlu woo dara mhm. foofu moom dama koy bañ ah, waaye nag am na ci loo xamante ne daw baraw la te daw baraw ci ngóor la bokk la bokk de voilà loolu moom mbayeng man damay bañ loolu mhm. man sama xale yi ma yor sax ku ci tëndu ki lor rek boo ko solee sama goro bi day day ba yoo xam naa sama yaay solol na ma mhm. bu solee lu gàtt dama ko naan wàcceel waaw ci la bokk di du koy sol mais su xëyee ba buy liggéey bay travail ba muy mm. fomp mm. da nga gis bëgg robb bi jël kilote euh, bi nga ex ne ba ci oom yi mais ne ma ko naan faatu wàcceel mm-hmm. mu daal di wàcce mm-hmm. man li may mag mag mag mënuma xëy tënju même su ma jógee ci du sama jël su ma tegee sama sa damay jëlaat sër teg ci sama kaw wala ma jël kaalo kaalawu ba may xale ba léegi loolu laa xale laaw dëgg la samay waa kër loolu laa leen ku ci def yaram neen wala say cër diggéen dama naan la dindi ma yaay man la jigéen cëram kenn waru ko xool fi ne man góor mënuma taxaw ak góor ba xool ko ba suñu ñeenti bët yi tase. ndeysaan yàlla barke alxuraanu karim. yow jigéen sax doo ko xool barke Serigne Fallou <laughs> wallaahi azim. ndeysaan jigéen. Mm-hmm. góor moomul boppam de. Mm-hmm. góor moomul boppam am na noo xam boo ni melee rombu jigéen yàlla boo takk seen fer yi nga xam ne xale yu ndaw yi seen strass si sew yi nga xam benn. tàkk jekk rafet ba dee waaw. liisal seen yaram bi dugg nag génn rob ay yow tam sa goro waroo ko rombe loolu. wax dëgg yàlla. koo bokk ndey ak baay nga bokk ndey ak sa sa waroo ko. waroo waroo koo rombe noonu parce que bu doon sa baay la doo ko rombe noonu kon baay sa baayu jëkkër ah? waroo koo rombe noonu yaa koy attiré nag day koy kobos hmm. te ba ko kobosee rek dina la jéem a xool ba xam moom ngay waxal wala déet dëgg la kon yooyu yëpp jigéen ñi nañ ci bàyyi xel rawatina ñi nekk ci biir kër yi te nekk faak ay kilifa hmm. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax keneen a ngi ci ligne bi ñu jël ko allo waaleykum asalaam wa rahmatullah waaw ñu ngi delloo ziar baax sama sëriñ waaw moo tax kontaan moom trop waay. kan ci. waaw soxna Socé dama ñëw ñu ngi sant waaw waaw. waaw yaay lañ quoi maa ngi kontaan lool ci moom waaye wax dëgg yàlla. ndeysaan ndeysaan. waaw waaw waaw parce que temps yëpp maa ngi wër ku ma woyal sama yaay ba tey ji ma xëy dégg kuy woy sama ñoom yaay vraiment maa ngi sant di la ñaanal bu baax waaye soxna si. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yow tudd. waaw waaw sinon. yow noo tudd. bon baal ma nëbbu turi parce que baal ma nëbbu turi parce que li ngeen di wax noonu thème boobu. waaw. daf maa dal ci benn soxna mais soxnay jaambur la xaw na yàgg na. Mm-hmm. <laughs> ndeysaan. waaw waaw xaw na yàgg na ci soxnay jaambur daf ma xawoon a topp ay jamono bo ma xawoon cee xam nga rek jàpp ay dox moo ma vraiment moom moo la topp. moom a magoon waa toppoon ma vraiment doon benn triange bu xawoon na doy waar daal. waaw waaw waaw <laughs> maa ngi bu baax a baax. am saytaane daa ma. waaw mais toll mais heureusement heureusement man nag xam nga suñu borom bu la nekk. ndeysaan. ndeysaan voilà gis nga ko. ñu sant sare lay wax. ñi sant sare dañuy yëngatu bala ngaa ñëwaat ñi sant sare da ngay bàyyi ba émission bi des cinq minutes jeex na man li nga bëgg rek <laughs> mais daf non dafa ñëw ci lu am solo waaw muy daf ko daloon moom waaw ndeysaan mais am na ci loo xamante ni góor daf koy dund mhm. te fekk na boobu du ko tey déedéet moo tax jigéen ñi li des ci émission bi ñoom ñoo koy moom ñoo koy moom de ndax am na ci loo xamante ni seen nekkin la mhm. diryanke bu doy waar mhm. mat saytaane di xeeñ lu neex kooku bu la dëgmalee rëbb si la du sooy du sooy mukk déedéet kon jigéen ñi dañ ci am wàll góor ay rëbb sooy mais jigéen du rëbb sooy te nag sa jëkkër nekk fi dafa tukki mm-hmm. mënoo muñ ba tax ngay wut xale bu ndaw boo teg ci wet gi am na am na am na lu ñaaw te te jekkati ci jigéen mais jamono dafa jeex ñetti fan la fi ne démb passé na ñoo ngi tey te xamuñu suba te dégg daa gaaw te loo bëggul dee fekk la ca bu ca ne Fatou Bar Fakal neel kooku ci ligne bi aloo macha allah. allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam sama yaay bi mu tëddee mu ne Absa man la sa doom Cissé. yow la sa doom. Cissé Cissé. Fouta. Cissé Cissé. Suuta Suuta. Cissé Cissé artiste Cissé. ubbil tuuti. nee na nekk yow waaye Mouhamed mu ndaw. ay ca yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy déglu. waaw maa ngi lay ziar sama yaay ngeen dalal tey. ndeysaan. ndeysaan. man man maa ngi ak daam. Cissé la maa ngi ziar sama yaay ju baax ci ngeen dalal noonu. billaay Cissé ngaar yi. di ñaanal di ñaanal yéen tamit seen télé. ndeysaan. yàlla def ko muy gën télé. amin amin amin yàlla def seen émission bi tamit yàlla kawel ko lool ñu ñaanal ci yaay ju ko wax ne moom lu mu lu mu lu amin Cissé amin nekk na koo xam ne maanaam yaayu ñëpp la. yaatu la di yaatale. wallahi di wax na ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam moom njabootam yàlla defal ko ko eh, yow mi ko invité tamit da nga xam ne maanaam di nga yokk te doo wàññeeku man loolu maa leen ko garanti nag jërëjëf incha allah rabbi ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal seen télé bi amiin Cissé jërëjëf barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke baay baax na amiin amiin waaw ku baax a ngoogu génn Mouhamed Cissé Mamadou Cissé ndeysaan Cissé jërëjëf ku ki nga xam ne faj na ko rëbët faj na njàmbutaan faj ndoxum siti ah. jàngoroy Kajoor ji fi ne kon moo ko fi jëlee liiru jaan jaan la kër bàyyi rek la yaakaar waaye maam bu boo ko wàcce nag hmm. moo ko jox tariqa bi moo ko jox laafa gi hmm. mu doon ko nag ci kër maamam fa tubaar fa kàlla ñaanal soxna Mbaye mu dem te kenn di ko téye laf cat <laughs> incha allahu taala amiin yàlla na ko yàlla nangu uh, may profité bu baax a baax di ci nuyu Medoune Sey borom tawféex mm. di sunu càmmeñ uh, mm. di sunu lépp nga xamante ni macha allah moom itam boo ko xamee rek daal di ànd ak tawféex kon Medoune Sey ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu diggante Thiès Touba Tivaouane ga mu nekk di ko wax ne ko zéro si yow dawoo daayoo tey demoo fenn te lii la yàlla dénk mm. yaa ngi koy bokk ak jaam ñi euh, kon euh, medun jërëjëf jërëjëf Yacine sa soxna nga xam ne sunu xarit la sunu lépp la buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar daf ci xamante ni day mm. manquel nit mm. euh, rawatina jigéen jigéen wax naa la dafay doylu jigéen dafay régler jigéen dafay muñ dëgg la am loo xamante ni mën nañ koo muñ a tax yàlla dénkuñu mm-hmm. ñu mën a yem ci benn borom kër borom kër ba am droit ba kat parce que yàlla xam na faiblesse am. dëgg la kon bu fekkente ni sa borom kër nekku fi. wala sa borom kër kattanam demeetul noonu ba nga war a mën a wut gone gu ndaw gu ko remplace mm. yaa ngi ci erreur boo xamante ni euh, du yàgg te ni nga ko waxee àddina ñetti fan la mm. démb weesu na ñoo ngi ci tey te ëllëg ëllëgi yàlla la mm-hmm. euh, nañ ci bàyyiwaat xel bu baax baax nee naa leen mm. bari na ci lu jongoma di toog ci këram ñu naan feebar sàngam a ko dugg ay yow mbaadu du jabet jee ko dugg. wallaay dafa am tension. wallaay dafa am nangam dafa am nangam booba feebar stress. xoola dara jotu ko. stress xol bi. stress a ko jàpp moo ko jàpp. ci musiba mu mu defoon ca ba muy jeeg bu ndaw. wallaay waree ko borom këram te borom kër ba dëkkee ay ree rek. ree rek yaakaar ne wàlliwu kamaan la yor ci biir kër wallaay nga dem nag ba nekk mag. Mm. di dundaat loolu fan la ma ko yàlla di jéggale. xaw ko loolu nag ci bi muy teel. Mm. fekk sa bopp dawale sa bopp yenn yi te nag wormaal sa bopp nee na leen fer ab jeeg di ko génne ci biti déedéet ba tey nga sax nit di ko dégg mais lu lu lu lu tax léeg-léeg léeg-léeg jéeg ji doxale noonu c'est pas jël mbub mu yaraaxa yaraaxa yaraax tax yàlla defal ñu ko ñu koy jiital di teg dafa tàng tax mu nekk sutura nga jël mbub mu yaraax def sa cité ngoos yàlla bindee la tubaarkàlla noo xamante ni bindeewu ko soxna Mbaye nga jàppee ne ko nag arme la wëgëj wëgëj ji fu ne nga dugg fa bee xeexal kool yaa nga ca grand place góor ñi attends yàlla leen attiré de yaa leen wuti de wuti wuñ la te nañ téye seen message yi yow bu fekkente ni téyewoo sa borom kër mm-hmm. kii ma nga téye borom këram téyel sa message yi ngay mm-hmm. envoyé borom këru mm-hmm. jàmbur c'est pas mooy message rek mooy indi problème yi te nekk ci sëy message yi mooy ndax jabaram da koy liir woola saaga la yow nga woo ko saaga ko ngeen waxante yu ñaaw lépp te borom kër gee koy waral gis naa loolu xeex sax aaw bu dem xeex kan jam message ki mu doon bëgg bu fekk ba këram ñuy xeex songoo coow loolu ba tey doy ñu mais mais kooku est-ce que mujj ñu ko takk takkuñu ko kooku moom takkuñu ko sax mujj ko takk ndax jabar ji moom da koy doo ko fa takk en général moom dañ koy takk dañ koy takk sax waaye kii moom aaw bee risqué futti ku dem xeexi moom wala wala sumi kuy saaga moom moom moom dara nee naa leen dootuñu reculer déedéet léttul noppi dégguma rek ma ko mais bis boo ko yegee gis ci musiba allo ñu jël mbokk moom ci ligne bi allo allo asalaamaaleykum waaw man de Pauline unité 24 mami Thiès mami sa xarit Thiès mooma woo na may dégguma nee na kontaan na ci yow. man mami man la ah, <laughs> dëgg wax nga dëgg. mami kees mami sa xarit kees. waaw sama xaritu xol. wallaay sama xaritu xol sama yaay jooju àpp ah, ajala sama yaay jooju ajàppoo. ndeysaan ndeysaan. jërëjëf ñun ñoo benn ndeysaan yàlla fay amiin jàppale amiin amiin jërëjëf kontaan naa ci yéen kontaan naa ci sama yaay jooju Mapo ki bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg ki bëgg parcelle. mbaa du yàqu Mapo na yéen ab ak kooku di woote. jërëjëf kontaan naa kontaan naa Diop moom. jàmm rek la am Diop ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax aw a Seck sunu doom. Mm-hmm. nekk foofu uh, ca Allemagne uh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar. ziar itam euh, euh, restaurant sénégambien bi nekk foofu ak euh, propriétaire ba ñu di ko wax Maymuna Ndong defe naa suma juumul noonu la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar ca Berlin la ñu nekk ci Allemagne ñu ngi leen di nuyu Awa Seck sama doom waaye fàttewuma ki nga xamante ni mooy mami Seyni Gassama mami yooye yàlla jàmmam yàgg amiin amiin ndax ki bëgg sa jàmm bëgg sa tawféex bëgg sa taar doo mën lu dul delloo ko mam looyee yàlla na sa jàmm yàgg foofu rek laay yem ndax boolewul dara ki wax donc mam yi ñu ngi koy gërëm bu baax euh, gërëm képp koo xamante ni yaa nga foofu ci Allemagne ca Berlin waaye nen ne saw moom euh, borom marque yu baax yi moom kenn du moom madame Silla yaayu Serigne Fallou waaye déggal loolu kenn du moom déggal loolu euh, donc muy lu doy war daal jigéen ñi nañ leen jàppale waat jigéen ñi itam nañ jàppale seen bopp nañu ànd ak caractère Euh, damay wax ne euh, am na loo xamante ni euh, gajja du ko maye ngat nag du ko maye mais wan ci yar ak teggin góor gi hmm. ñëw dab la dëgg la wala mu jël sa téléphone soxna si nangam ak nangam gis nga ñun ñii di liggéey ci tele wala hmm. yéen artistes yi waaw daf leen di dal ak soxna si na nga def ça va yaa ngi si hmm. jàmm mais soxna si man dama laa bëgg dama ne ah bilaay maa la bëgg maa la raw koo bëgg-bëgg na la dafa yaakaar ne buntu la yow fan sa nga koy jàppee jeex na mais moom dafay yaakaar ne buntu la boo xamante ne war na caa mën a jaar pour aborder la dem nag commencé ba gis saa yu ma la gisee ci télé bi kay lox laay def saa yu ma la gisee ci télé bi dootuma mën a téye sama bopp ma yëkkati sama téléphone woo la ne la sëñ bi xanaa da nga juum ci message yi ki nga ko doon yónnee nga ne ma yow la kan man la man la soxna Mbayang bi def teer te tata Mbayang tan Mbayang mère Mbayang nga ne ma non non juumu ma yaay def émission kër gi ma ne la waaw man maay def émision kër gi waaye kat message bi doom damay màggat moo tax wallaay ma yaakaar ne xëy na dama ko moomul non man su ma la gisee rek ni ngay kii ak nangam sànga man la nga baal ma nag xëy na jéen ji xale yi dañ koo dindi waaye ma madame jéen la daf leen dal dal artiste beneen beneen beneen mën nañoo làmb nag mu nooy mu nooy mais mën nañoo làmb feneen mu dëgër mhm. kon jigéen ñi ci seen bopp rek. Mm. luñ ci mënti doon loo bëggul mu law bu ko yar. jeex na ab sa temps bi mu ngi jeex. mi ngi jeex dama lay bàyyi nga tàggoog mbokk yi tàggoog boo xamante ni. yow nee naa léegi ñàkk la ci kër gi wóorul. toujours maa ngi fi. macha allah waa sa goowe gi goowe gi itam dellu si waat na ba ngay indil ma ci pot tey jii. billaay wala yaa ko moom gars yi nee nañ ma ab gooweem numéro lan la. Ah, 77 365 18 27 77 365 18 27 ngir ay soppeem waaye képp koo xamante gii goowe mm-hmm. gisuma ko fenn man maa leen ko wax 365 18 27 Fatou Baar Fakal Ajaratu Mbayang waaw rapidement ñëpp rek mm-hmm. parcelle ga ma jógee di ci jiital euh, chef de quartier ba Alaaji Biram Li di sant sama yaay fa nekk ñëpp mm-hmm. tout le monde c'est vrai waaye may sant sama rakk rek ndax lii ñu wax ci góor ñi dalul sama rakk yi dalul vie Mbàkke dayul magam jooju Ousmane Diouf mi ko dalal baax mm. waaye laaw la cat fa tubaar fa kàlla goot sare ma ca étali maasàllaa mm. maasàllaa lu yendu lu mu yendoo fanaan ci man mm. xam nañ sama yaay dem nañu def ma yaay ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaan yàlla yàlla nañu sut seen bàyyi fan amiin macha allah laaw la cat maa ngi ñu yokkoo yokkoo yokkoo ko te maa ngi ñaanal ñëpp bàyyi ma kenn da fan si dañoo bari ki ne jàllo yal na la yàlla génne ci li nga nekk yàlla nga ci dugg ak baa génn ak siin amiin asu kamara teral na ma barki dem ma te dara yëngul mm. fatubaar fa kàlla macha ma ko waxee mm-hmm. ba caat jërëjëf maa ngi sant fatubaar fa kàlla taawu baay ba ci caat bàyyi ma sare yal na la yàlla may wér yow it bu ñu amul woon wuti la yow it yal na la yàlla defal jàmm ndax euh, euh, koy bokk ak nit ñi wax dëgg yàlla te itam nekk ku am yar ami teggin bëgg ñëpp kontaan macha allah yal yàlla defal la jàmm. yàlla bàyyi la ak say euh, euh, frère ak say sœur ñëpp nga uuf leen tey it nag euh, lewet doom nga def sare yal na yàlla defal la jàmm mu ngi ñëw tey ji goowe gaa ngi mel ni bu ma la ko xati man man siwo bu ma ci kenn ñaan nag maa da caam léegi mu yónnee pot bu ndaw Euh, yaa ko moom yow da ngaa baax ñu koy gërëm daal di ko sant maana itam seen waa koñ nañu yónnee parce que maana itam si woo ma ngi nii tege ah. na gaaw génn léegi donc euh, na ci jox seen waa koñ maa ngi gërëm ñee di sant sama kër ma bàyyi nag sama goro yi ma bàyyi ni ma ko waxoon rek waaw seen mag awa gisa ba ci suuf rek jeex na fa tubaar fa kàll yaa faat suwaare jaajëf sama yaay ji barki dem yaay faatu ngam mm. ak musu taaw ndeysaan anta ngam toñ na parcelle barki dem jërëjëf ñu a baax yéen yéen moom lépp Ami Jaw laa solo te Aïda Cissé ko nag star en ligne laa lay yóbbu ca yaa yaa awa Aïda Cissé ma jox la wala ma ko joxe jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal ak Marème doomam yére yu feex yi nga xamante ne dañ ma koy wutal maa ngi koy gërëm gërëm itam Aminta Mbay mi nga xamante ne ba mu daree Michel ba léegi bàyyiwu ko Aminta yàlla na sa jàmm yàgg jàmm ñëpp yàgg rendez suba incha a ah, suba feet la asalaamaaleykum fi amaanilaa Adja Mbaye hmm. sama yaay aji Mbaye ñax mi ñu duppee sama yaay aji Mbaye ngay borom tewaan maar sama yaay yooyu ak Fatou Gueye taawam <laughs> jërëjëf